salaamaaleykum mbokki xarit yi seetaan ñu leen di jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen biir Télé Mauritanie si jotaay ñuy euh, seq euh, ak yéen ay bus bu jot ci guddi di waxtaan wi euh, bi yoon nag ñu jagleel ko ak mbas mi nga xamante ne ni mi ngi ci réew mi te ëpp weer a ngi nii gis nañ ni mbas mi dafa gën a tasaaroo ci réew mi ñi naan xëy na seddaay bi la wala xëy na bokk na ci li ko yokk ñi naan xëy na nit ñi ñoo bàyyeeku ba ëpp. ci loolu nag ma fiy dalal kii di docteur Diouf ma bàyyi ko mu nuyoo ak yéen. Euh, merci Fatou. may nuyu suñu mbokku spectat euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. Euh, di nuyu euh, Soadatu Dieng bi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi. di la nuyu yow di nuyu ñëpp nekk fi di di jàpp ci liggéey bi. di leen wax rek salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf moom nag ab médecin la ci wet gi maa ngi fi am ki nga xam ne moom moo di Soadou Dieng moom nekk kilifa. Soadou Ndiaye njaay di jéggalu mm-hmm. Soadou Ndiaye nekk. kilifa foofule euh, ci jëwriñ ji ñu dénk wàllum biir euh, réew mi euh, ma nga foofu nag ci direction boobu yore wàllum dëkk dëkk beeg dëkkaa dëkk dëkkaat yi moom la ñu toftal ci kilifa gi fa jiite ñu bàyyi ko moom tamit mu nuyoo ak yéen daataa ñëw ci suñu waxtaan waaw jërëjëf Ndeye Fatou maa ngi lay gërëm di la sant déjà sa invité invitation bi nga ma invité mm-hmm. euh, di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñu seetaani aussi di bool di nuyu docteur Diouf bii ma bokk ak plateau bi mm-hmm. euh, di la nuyu yow tamit donc di wax rek asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi waaw kon nag euh, gis ngeen ko ñun ñoo seq jotaay bi kii bokk ci way kër docteur euh, kii bokk ci jëriñ ci ñu dénk wàllum biir réew mi ndax ku ne xam na ni xeex bi ñoom ñaar ñoom ñoo ko seq mën nañu li ci gën a ëpp mi ngi ajoo ci ministère de la santé ak euh, ministère de l'intérieur ndax ku ne gis na ni li nga xamante ne ni moom la ñuy fegoo pour mucc ci jàngoro ji waaye ba kër docteur ñoo koy wax waaye tamit ci yoon bi ñu koy jaarale ci mel ni ci mbuurum couvre-feu beeg daje ñuy tere loolu yëpp mi ngi ajoo ci ministère de l'intérieur kon nag dañuy ànd mm, ak waa régie ñu daal ñuy jëktal euh, suñu élément bu njëkk ànd ak Léna Dièye mu daal ñuy wax rek fi ñu toll nii euh, fan la mbir mi toll. mbasum Covid 19 bàyyi na ay góom ak i ci dundu doomi aadama yi nekk ci biir réew mi li ko waral mooy ñàkk nangu wala gëm bi nga xamante ni ñenn ci askan wi bañal nañ koo gëm li nga xamante ni moom mooy mbas mi. te ko def taxaw seetlu di nga xam ne ñenn ci askan wi dañoo tayli li nga xamante ni moom mooy koomu réew mi ak ndoxalinam ndax seen ñàkk farlu ci matuwaay yi. nguur gi jël na ay matuwaay ngir dimbali askan wi ci ñu xool naka la ñuy dëkkee ak mbas mi waaye it ngir ñu mën a ràññee nu muy lore ak lépp lu muy faagaagalee ci ndimbal googe nga xamante ni nguur gi jël na ko jël nañu ay dogal defaraati dispensaire yu bëri ci réew mi ngir mën a jàmmarloo ak li nga xamante ni moom mooy mbasum Covid 19. waaye nag mel na ni ñàkk sàmmonteeg li nga xamante ni moom mooy sàmmonteeg charti mbas mi tax na ba li nga xamante ni moo ñu yóbbee ñaareelu xaaju Covid bi nga xamante ni moom mooy Covid 19 ñëwaat ak doole ci biir réew mi indaale fitna gu bëri indaale naqar gu bëri ndax dañuy yendoo tiis ay malade yuy tëdd ci lalu hôpitaux yi waaye it ay bakkan yi nga xamante ni dafa leen di yendoo faat doon nag ab calala buy wéy ba léegi te kenn mënu caa indi ab saafara li ko waral nag ñépp nee nañu askan wi la. ngir xeex ak ñàkk farlu gi ci askan wi sax jot nañu jël ay matuwaay yi nga xamante ni mel ni jël ay ndogal def couvre-feu daal di tëj yenn jumaa yi tere yenn ndaje yi waaye it daal di digle takkum soomu gi maanaam masque dem bay teg sax daan képp ki nga xamante ni da nga dëppawul wala da nga sàmmontewul ak digal yi nga xamante ni nguur digle na ko ci wet gi tamit génnee nañu ñun teg ko ci loxo yi néegi doole yi nga xamante ni daawuñu dunde lu dul seen ñaqu bëccëg dooleel bërëb bu fa fajukaay yi doon na lu itteel nguur gi lool daal di jël jumtuwaay yu bees ak xarala yu bees ngir dalal way feebar yi ci anam yu mucc ayib waaye li am ba des mooy njàqare dal nañu naka la ñuy xiixi ak beneen fànn gi mel ni bëjoo bi am ci wàllu dem beeg dikk bi nga xam ne oto yi ndaamaar yi loo gis koo gis ma nga tànqaloo ak keneen ki loolu nag doon na tey jii fitna ba nga xamante ni jot na ñu xeex ko ngir dakkal ko ana li waral loolu nit ñi ñoo xamagul naka la demee wala dañoo tànqamlu naka la ñu koy defee li nga xamante ni moom mooy xeex ak mbas mi loolu nag des nañ koy waxtaanee euh, ci seen émission bi di waxtaan wi. waaw kon nag di ko jaajëfal bu baax moom leen a Cheikh Dieye ci reportage bu am solo boobule euh, donc euh, docteur dégg bi mu ne ba xam lu waral lii nit ñi ñoom ñoo xamagul rek wala nit ñi daal dañuy def lu leen neex. waaw Ndeye Fatou reportage bi ñuy door a gis léegi léegi daf nekk reportage boo xam ni bu. am solo la parce que sooy xool soxna si leen a jëy pratiquement daf ko wër dafa wër li mesure yu gouvernement bi jël wër ni nit yi war a comporter woo wër nan lan war a def ba mbas bi mën a euh, génn ci dëkk bi donc reportage bu am solo la moo tax léegi-léegi bi ñu ko tegee maa ngi si concentré wu di ko di ko xool question bi nga may posé yaakaar naa mënuma wax ni nit yi euh, xamuñu li xew wala xamuñu nuñ ko war a éviter parce que depuis affaire bi commencer ñu ngi ciy wax di ci waxaat man mën naa wax ni bii mooy sama troisième fois may ñëw fii ci télé bi wala quatrième fois may ñëw ci tele bi di wax ci lii pour gindi nit yi ba ñu xam di ñu war a comporter woo euh, pour éviter euh, feebar bi au début dafa am ñu bari ci ñoom ñoo xam ni dañu yaakaaroon ni feebar bi amul gëmu gëmuñu ko te loolu du ci Mauritanie rek nee naa la ba ci États-Unis am na ba léegi am na ay nit yoo xam ne dañuy wax ni sa amul donc du ci Mauritanie yëpp ci àdduna bi rek la donc au début dañ doon wax ni feebar bi amul mais bi ñu demee ba ci biir nit yi dem nañ ba ku nekk ci ñoom am nga rek mbokk boo xam ni jege na la wala koo xam ne mu ngi sa biir kër koo xam ni ñàkk nga ko ndax feebar bi donc nit yi commencé nañ di ko gëm mm-hmm. mais gëm bi nag gëm nañ ni feebar bi am na mm-hmm. mais gëmuñu nañu feebar bi ni ñuy waxee noonu lay lore noonu lay lore mm-hmm. parce que booy xool feebar bi boo ko remarqué da ngay gis ni rek population bi nga xam ni mooy la population vieillissante ñooñu la gën a sonal donc dafa dem ba population jeune bi dañ ko dañ ko négliger banaliser ko def ko comme su fekkee dafa nekk loo xam ni garaawul mm-hmm. te loolu mooy danger bi pour le moment dans le pays loolu mooy danger bi pratiquement ci àdduna bi yëpp booy xool information yi da ngay gis même feetu euh, fin d'année yi da ngay gis àdduna bi gis nañ fi ay feet yoo xam ni ay mille personne nooy dajaloo ci benn bërëb di def feet mille personnes yooyu du ñu ay mag ay jeunes lan donc inconscience boobu moo ñu sonal ñun actuellement moo sonal état moo sonal personnel de santé bi moo sonal la population mauritanienne parce que lu ci dal population bi rek di répercuté wu ci ci dëkk bi yëpp ñëpp lay répercuté wu instant bi booy xool lépp a taxaw yàgg naa di ko wax wax naa santé lu jar ak gestu la parce que santé problème de santé moom bu amee rek dëkk bi day taxaw mm-hmm. instant bi loolu moo ñu daal lépp a taxaw donc nit di daal nañ gën a fagaruwaat mm-hmm. gën a déglu li ñu leen di wax li leen état di wax mm-hmm. ñu jéem ko appliquer comme ça ñu am jàmm très rapidement. Mhm. mën a jàll ci leneen. dëgg la euh, kon nag ma ñëw ci Souadou mhm. Ndiaye Souadou mhm. na a ngi si na ay yoo xamante ne ni yu bari mm, jël ngeen ko ngir dakkal feebar bi naka lay euh, avancé. lu ci mel ne couvre-feu waaye yemul ci loolu am na yeneen mesures yoo xam ne ni jël nga leen jël ngeen leen boo ci mënee dikkat ñun. waa mbas bi ba muy soogaam ba muy soogaam ñëw déjà fii suñu dëkk. déjà état bi dafa taxaw jël ay matukaayam matukaay mooy lan mooy mm-hmm. jël ay mesures yi nga wax yi mm-hmm. mu jël effectivement un certain nombre de mesures euh, bu muy ci première vague bi laay wax mm-hmm. donc euh, defoon nañu couvre-feu tëjoon nañu frontière mu nekk ay mesures très drastiques yi nga xam ne état bi jël na ko euh, léegi ñu ñëwaat ñu ngi ci deuxième vague bi ñu delluwaat ci mesures yooyu li nga xam ni mooy dis wax nañu distanciation sociale wax nañu couvre-feu wax nañu le port du masque wax nañu lavage des mains donc mu nekk vraiment ay mesures nga xam ne état bi jël na ko donc état bi moom ménage wul vraiment aucun effort pour conscientiser population bi pour sensibiliser leen léegi lu si lu si des mooy lan mooy effectivement euh, prise de conscience de la population euh, population bi je pense que état bi bu jëloon toutes les mesures du monde bu jëloon mettre tous les moyens à disposition mm-hmm. te alors qu'il n'y a pas une prise de conscience derrière de la population je pense que affaire bi du jàll mm-hmm. docteur wax na ko euh, je pense que nous en tant que population on se doit de de de gestu de dimbali euh, le personnel de santé mm-hmm. dimbali autorité parce que ñun population bi moo leen war a fekk si suñu mesures yu ñu jëli euh, donc mesures yi jël nañ ko. ci reportage bi gis nañ ko. gis nañu population bi respecté wu nu mu ko war a respecté. Mhm. donc ñu leen delluwaat di leen ñaax di ñaax population bi ni ñun vraiment en tant que autorité def ñoo ngi def lu ñu mën donc ñoom ñoo ñu war a fekk si aussi. Mhm. parce que bu ñu la waxee ni yow fekkee takkuloo masque. raxasuloo sa loxo respecté woo yow daa lool sa ñi nga nekkal. dëgg la déjà say dëkkandoo mhm. say mbokk yaa ngi leen di loor mhm. donc loolu déjà bu ñu la ko waxee rek war na la defal prise de conscience nga war a jël sa ay motukaay war a respecter pour déjà nga dimbale say mbokk ak sa ay dëkkandoo mhm. donc je pense que aussi population population bi am na rôle bu mag bu mu war a jouer bi nga xam ni war na si fekk si muy docteurs yi muy autorité muy euh, mais jël ngeen ay ndogal euh, tëj ngeen ay frontières comme ni nga ko waxee def ngeen couvre-feu bi euh, interdire ngeen xew yi ak jigéen saal yi ak yooyu yëpp mhm. mais est-ce que euh, ministère de l'intérieur ak bànqaas yi mu am lu ci mhm. mel ni police ak yooyu yëpp mhm. est-ce que ñi ngi taxaw di di saytu bu baax ngir askan wi est-ce que ñi ngi respecté loolu nga xamante ne ni tere nañ leen waaw soxna Fatou man damay jox rek benn exemple bu concret man damay fréquenter marché yi damay dem dugg yi damay dem dugg si oto yeeg yooyu effectivement gis naa nu muy demee mais je pense que suñu autorité aussi gàcce ngaalaama man boo demee si marché yi da gis point bu nekk ñu fa teg ay lavoir pour ñu raxas seen seen loxo mm. auto yaa ngi taxaw mm. groupement GCR yi ñu ngi taxaw mm. effectivement ñun dañu dafa nekk situation bi inédite man je peux dire que population bi xëy na nga toog toog rek ñun la waaw da nga war a def sa masque da nga war a waratuloo nuyoo waratul li donc loolu peut dafay nekk nouveauté si ñoom mais bu ñu toppee ak sensibilisation bi ak wax bu ñuy wax bi je pense que déjà prise de conscience boobu war na am donc autorités ils sur place amul relâchement donc ñoo ngi dégg ñu wax effectivement dafa am relâchement wala ni non non non les autorités sont sur place donc ñoom ñoo ngi topp ñoo ngi saytu ñoo ngi def vraiment lu ñu mën donc man loolu laa mën wax vraiment sama suñu autorité ñoo fi def vraiment lu ñu mën donc euh, population bi si ñoor wala ñoo wala dimbale benn exemple bu mu lay jox euh, ñoo ngi bu ñu demee ci transport yi sama mbokk taximaan yi fii laay waxal bu ñu jëlee def surcharge yow surcharge bi yaa ngi koy def pour peut-être yaa ngi bëgg plus en plus de gain mais yow au lieu de surcharger mën nga jël par exemple man damay jël ñett nit wala kenn sa kanam ñaar sa kanam mais ma yokk paas bi pourquoi pas ma yokk mm-hmm. parce que boo xoolee noonu rek lay mel yow déjà boo surcharger ça yàq sa oto déjà pour mm-hmm. commencer mm-hmm. donc euh, loolu déjà c'est une solution donc di ñaax aussi sama mbokk taximaan yi si transport yi donc loolu aussi lu ñu seetlu la donc mën nañ ci def ay jéego yu mel ne comme wàññi nombre de personnes yi rek ba ñu yokk paas bi ça par exemple c'est mhm. solution la mhm. voilà xam naa dinaa ñëw après si mhm. daan yi ak euh, yooyu ma ñëw rek euh, ci euh, docteur docteur gis nañu deuxième vague bi deuxième vague bi mu ñëw dafa tombé ak seddaay bi est-ce que am na lien bu justifié scientifiquement que ni seddaay bi mën na favoriser euh, virus bi parce que dañoo gis ne bu ñu commencé sedd rek commencé génne suñu mbàjj yi dafa mel ne ci lañ gis deuxième vague euh, ci suñu réew ak ci réew yi nga xam te ni ñoo wër. waaw ndefaatu ci ci sama xam-xam man ak ci lu ma jotagum liir ak jàng. Mhm. gisaguma ci benn preuve scientifique boo xam ni dafay démontrer ni euh, sedd bi dafay favoriser virus bi. gisaguma ko ci jàngaguma ko ci dégg te déggaguma ko ci. Mm-hmm. donc mais booy xool mbir mi ni mu demee c'est-à-dire que première vague bi période bi mu amoon. première vague bi mu ngi am ci période euh, décembre janvier février. Mm-hmm. ñu dem ba tàngoor bi dugg. wàcc euh, courbe bi wàcc carrément. Mm-hmm. courbe bi wàcc courbe bi dem ba tàngoor bi jeexaat ñu duggaat ci sedd bi courbe bi yéegaat. donc booy xool daal dafa mel ne. dafa mel ne sedd bi dafay favoriser euh, propagation du virus bi dafa daf koy favoriser élément la boo xam ni war nañ ko xoolaat war nañ ci gëstu bu baax xool est-ce que euh, lu am la wala lu amul la mais booy xool nii rek sa gis-gis nii rek da ngay gis ni c'est une affaire boo xam ni dafa mel ni seet bi daf koy favoriser mais comme ñun ay scientifique lan lépp loo xam ni c'est pas démontré scientifiquement mënuñu ci avancer de trop quoi mu bëggoon rek euh, dellu ci li mu doon wax léegi par rapport à la population par rapport à li nga ko wax ni lii euh, ministère de l'intérieur am ay policiers am ay gendarme am ay militaire mhm. mais booy xool population Mauritanie moom moo ëpp nombre de militaires gendarme ak yëpp ju ñu am gendarme bu nekk mënul taxaw ci kanam benn population di ko wax lii ngay def ak lii ngay def ak lii ngay def ce n'est plus le rôle de mhm. l'État lu mu war a def ay responsabilités jël na ko mhm. l'État jël na ay responsabilités am jël ay mesures am teg ko dicté que la population chaque jour ñu taxaw ci télé bi répéter leen les mêmes mesures jël ay soldats teg leen ci ay places pour ñuy vérifier ku def ak ku deful mënuñu rek daal toog ku deful rek ñu jël rek rëq sa ndigg loolu mënuñu ko finalement dañuy nekk un état policier loolu ça ne nous donc population bi ñoom ñoo war a nekk une di wax parce que li ñu leen di wax seen njëriñ la tamit li ñu leen di wax du njëriñu état seen njëriñ la état fi nekkal ñoom la bëggal jàmm donc population bi ñoom ñoo war a jël seen ay wax mm-hmm. def au maximum pour mën ko def mm-hmm. donc bu ñuy wax surcharge par rapport à donc buñ leen sax jox cet esprit là ba ñuy mën a def surcharge pour man surcharge même en temps normal dafa warul am warul am loolu il faut ñu dindi ko si si loolu c'est des bienfaits de de de de cette Covid là man nee naa Covid bi <laughs> bon na mais def na lu bari loo xam ni mhm. daf ñuy wan ni ñun dañu nekkoon daal ci benn Euh, genre de vie boo xam ni c'était le laisser aller quoi mm. Mm. il faut ñu xoolaat quand même suñu ay mm. comportement jéem ko changer pour mën a génn ci li benn yoon noppalu quoi franchement parce que ñëpp sonn na ñëpp sonn nañ franchement euh, dëgg la macha allah léegi euh, soit de suñu mënee ñëw ci comme wax nga rek li nga xam te moom mooy surcharge bi ko war a dañ ko interdire mm-hmm. du yoon gis nañ ni am nañu ay agent de euh, GGSR yoo xam ne ñu ngi ci kaw tali bi mhm. Mhm. gis nañ ni nit ñi mën nañ euh, nekk ci oto yi surcharge mais takkuñu masque mhm. waaye euh, daan wala yéen da ngeen jël politique boo xamante ne nii du ngeen teg ay daan wala daan yi am na mais dañ koo jëfewul wala nu mu mu fa tëddee waaw mesures yi jël nañ ko Ndeye Fatou mhm. mesures yi am na jël nañ ko à travers des actes administratifs mhm. ay arrêté ay circulaire mesure mesures yaa ngi fi mhm. donc policiers yi comme teg ay daan ñu ngi fi teg ay daan ku takkul sa masque waaw du en fait du ay amende wala yooyu mais c'est une obligation boo xoolee arrêté par exemple on te dit que au niveau des lieux publics si marché yeeg wala lieux publics yi port du masque takk masque bi dafa dafa dafa dafa dafa obligatoire donc donc loolu déjà ñu génnee ko yow population bi mais bul xaar ñu lay teg ay amende bul xaar ñu lay comme docteur bi ma ko waxee ñu lay kii wala dara mhm. yow lii pour sa bien la mais def ko bul xaar ñu naan la waaw boo defulee lii dañ lay amende di daw sa ginnaaw di la door nii non man pense que vraiment population bi warul xaar bu ñu yegg si foofu ak moom sax di dàqante ak ñoom takkal bul takk defal bul def donc déjà wax nañ lii déjà c'est obligatoire et c'est pour bien donc nga nga def ko mhm. mais c'est c'est des mesures qui ont été prises c'est obligatoire je le répète maa ngi koy waxaat fii encore mhm. le port du masque obligatoire au niveau des lieux publics mhm. am na benn arrêté conjoint bu ministère de de l'intérieur def avec le ministère du commerce donc au niveau des marchés donc obligatoirement port du masque distanciation sociale laxas say loxo comme ni mu la ko waxee boo demee si marché marché mm. cinquième marché ganaar marché capital bi mm. boo fa demee daa gis coin bu nekk am na foofu ay lavoir ñu teg fa ku ñëw dugg nga raxas sa loxo man damay dem marché comme ni mu la ko waxee mais mm. ñi lañ koy rombee gauche ma doon xoolaat man mm-hmm. maa ngi am sama gel maa ngi am sama yëpp mm-hmm. mais je me dis que c'est bien au moins nga ñëw ku ñëw taxaw def nii sa nga raxasu au moins nit ñi gis ko mm-hmm. xam nga déjà yow peut-être keneen bu la gisee dina ko def donc vraiment euh, affaire bi des na daal au niveau de la population. Mm, dëgg la te te et mm-hmm. bu ñu bàyyee lépp nguur gi. Mm-hmm. yaakaar naa côté boobu sax maire yi mënoon nañu ci jouer rôle bu baax. teg ci ay nit yoo xam te ni bala nga dugg ci marché bi mm-hmm. force faaw nga raxas parce que loolu. première vague bi yaakaar ci lañ ci nit ñi gënoon a euh, gënoon a euh, bàyyi xel. mais docteur dafa mel ne ñun corona bi dañ koo miin ndax dafa mel ne liñ doon farlu ci bu njëkk ba léegi farlootuñu ko dañoo bàyyi suñu loxo daal. waaw exactement mm-hmm. loolu loolu laa remarqué te du ma di ko wax à chaque mm-hmm. fois dama koy wax mm-hmm. mais li ñuy wax rek c'est-à-dire que loo miin rek dootuloo ko ragal quoi boo gisee première vague bi c'est-à-dire que corona bi benn feebar la woon boo xam ne ñun xamuñu ko woon kenn xamu ko woon ñëpp ko ragaloon parce que dañu toog rek ñu wax ñu Italie ay deux cent et quelques morts par jour Espagne y a de morts par jour et tout ñëpp tiit mais bi ñu demee ñun. ba gis ni bon voilà feebar bi dugg fi commencé di dal nit yi gis nañ sax ñun am na ay décès mais lu ñu sonal ñun suñu dëkk bi lu ñu sonal c'est la jeunesse. kooku nañ ko wax te dee ñun lu ñu sonal. c'est que on a une jeunesse inconsciente. parce que ñoom feebar bi sonalu leen. feebar bi rayul ci ñoom lu ñu lu bari donc seen yoon nekku ci. ñu loolu moo ñu sonal. Mm-hmm. mag yi ñu ngi daw lu ñu mën mhm. mag yi génnuñu de mhm. mag yi ñu ngi nekk seen ay biir néeg seen mhm. diggu kër yi sax duñ fa teg mais ñoom ñooy feebar fu ñu jëlee feebar bi jeunes yi ñoo leen ci indil ñu daal dañuy ñaan yàlla jeunes yi nan ñu dimbali quoi yërëmal ñu suñu mag yi parce que soxla nañ leen mag yi ñun soxla nañ leen donc nan ñu dimbali yërëmal ñu suñu mag yi bu ñu mënul toog seen ay kër yi bu ñu génn nañ jël seen ay mesures bu ñu duggee seen ay kër nañ jël mesures yi ñu leen wax raxasoo et tout ça moytu sax mag yi quoi franchement donc ragalatuñ feebar bi. Mhm. parce que gis nañ rayul ay jeunes. Mhm. mais mais mag yi ñun soxla nañ leen suñu maam yi ak suñu yaay yi. Mhm. billaay soxla na man de soxla naa leen. man de bëgg naa ñu des fi. te ñoom rek laay dégg ni ñu ngi dem. surtout deuxième vague bi dafa mel ne. moom dafa takkarnaas ci ñoom quoi. ñoom rek ñooy dem. yàlla nu ci yàlla musal quoi nañu suñu jeunes yi suñu ndaw dëkk bi. nañ jël seen ay responsabilités nekk ay responsable éviter fépp fu ñu mën a dem foo xam ne daf leen di indil indil feebar wax naa la mariage yi ak ngénte yi ak yi yëpp ñu ñu interdire mhm. mais dangay gis benn salon boo xam ni mhm. salon de dix mètres carrés la mhm. dix mètres carrés ñu bugg fa organiser mariage ah, cinquante à ah, soixante personnes ci ci ah, salon bi pendant la journée au vu et au su de tout le monde ñëpp koy gis te kenn du wax dara ñooñu jógee foofu euh, jële fa seen feebar dem ñibbi seen kër yi wàllu mag yi nekk ci kër kër mais li kenn mënu ko bàyyi mu demee noonu. il faut nit di arrêté ko man genre mariage ak genre ngénte ak anniversaire yooyu la euh, way takk der yi war a arrêté. Mhm. quitte à ce ñi ko organiser ñu jàpp leen tëj leen rap. Mhm. teg leen ay daan yu metti ñoo ñoo jara jara njëkk a daan parce que regrouper mhm. cinquante personnes dans un petit salon de dix mètres carrés c'est insensé dans une période pareille c'est des qui ne se font pas et ça se fait à longueur de journée tous les jours da ngay jékki-jékki rek nga gis ci Facebook bi mariage de tel et nga gis nga bu mbaay nit yaa ngi fii di mm-hmm. fecc di def il faut que ça il faut que ça cesse mm-hmm. il faut ñu arrêter loolu suñu bëggee def un travail qui est correct si loolu la ñuy jóg d'abord mariage cérémonie tout ça ñu arrêté ko mm-hmm. parce que foofu loolu mooy cluster yi foofu lay affaire yi di jóge dem dugg ci biir kër yi sonn nan daal franchement nan ñu dimbali mais xam nga li su aadu wax léegi bu fekkee ministère de l'intérieur moom day def ay arrêté hmm, wala président day ay décret te fekk ci ginnaaw amul benn sanction parce que bu fekkee ni def nañu nit ñi yaakaar ne ay citoyen euh, yu baax lañu que bu ñu leen teree ñu dégg mais bu fekkee tere nañ leen dégguñu parce que même bu ñu waxee eh, jàkke yi bu kenn julli na imaam ak naayib julli boorom be jàkke timis di nga gis oto yaa ngi taxaw nit ñi ñu ngi ñëw di julli si kon nit ñi respecté ñu loolu ajjuma bi nee ñu ministère de l'intérieur bu ñu julli ajjuma mais di gis ñi nga xamante ni daañu essayé euh, créer groupe bu pour julli ajjuma est-ce que euh, jotul nag ministère de l'intérieur euh, euh, jël ay responsabilités am taxaw nag def ay daan ginnaaw nag affaire bi moom ñi ngi wax nànk-nànk demul ñu xëy na bu ñu utiliser le docteur wax état état bu nekkee état euh, kii état bu waaw état policier dina xay bi xëy na mu indi ay saafara. waa dëgg la Ndeye Fatou damay delluwaat tuuti si docteur lu mu wax par mm. rapport ak cérémonie yi. Mm. Euh, cérémonie au niveau des des lieux publics boobu dañ ko interdire. Mm-hmm. donc lu mu wax ni mooy lan effectivement dañuy ñëw ci benn kër def fa def fa seen mariage. Mm-hmm. donc loolu peut-être mën na échapper autorité boo ñëwee sa biir kër tëj sa kër bon ñun de sa ay ñett ngeen nekk seen biir salon bon mën na échapper autorité mais parfois parfois dañuy ñëw di dugg si biir kër yi ma xamal leen ko fii te am na am na ay mariage yu bari yu policiers yi tas si biir kër yi man fekk mais am na ñu ma wax ni dañuy ñëw moom si boppam moo taxaw dafoo ñëw ñu tas mariage bi fekk juste ñoo ngi service seen lekk ñu leen nañu jóg ku nekk la dem si këram wala ñu embarqué leen yóbbu c'est que voisins yi aussi mhm. buñ ci noppee xëy na bu voisins yi doon dénoncé xam nga fii tamit mhm. dénonciation moo fi du am waaw loolu loolu loolu mhm. aussi mais boobu de xaw ma nag ku leen ku leen ku leen ku leen yoolee comme ni ko xale yi di waxee waaye ñëw nañu di tas na te du benn du yoon du benn du ñaar de bëri nu ñuy tas mariage ak cérémonie si biir si si si si si si si si biir kër yi waaye tamit effectivement euh, ci sanction yi si sanction yi si sanction yi comme ni ma la ko waxee rek wax nañ ko def nañ ko bind nañ ko c'est obligatoire mhm. waaye peut-être ñoom ñu dem ba au-delà dem nekk rek xam nga rek état policier mhm. xam nga rek en tant que population citoyenne déjà mhm. dañu citoyenneté bi je pense que moom ñu war a jiital dafa am son excellence le président de la république lu mu wax lu am importance ci première vague bi bu muy def son discours à la nation dafa ba yàgg sax mu teg këyit yi muy damay waxanteeg yéen en tant que par président la mais en tant que citoyen en citoyen population mu ne yéen laay mu ni dama bëgg ñun ku nekk jël sa ay matukaay ku nekk jël say responsabilité ensemble ñu mën a xeex mbas bi ñu mën a xeex feebar bi parce que ñun kese autorité état ñun ñëpp duñ ci duñ mun mun mënuñu ko mënuñu ko daan mhm. il faut population bi bokk ci donc loolu je pense que wax bu am solo la donc ku nekk conscient képp ku conscient en tant que citoyen population boo déggee wax boobu je pense que war na la éveiller mhm. lépp loo kii woon nga nga bàyyi ko daal nga jàpp ci bu baax parce que mu dem mhm. mbas bi bu demee mhm. nga delluwaat say mariage def say mhm. ngénte dem say mhm. dama leen dëkkati xam nga restriction liberté xam nga neexul huit heures jot noonu la ku nekk na nga dellu fa nga jóge nga war sa ay soxla yoo war a doxi mais parce que feebar bi moo ko moo moo ko waral bu fa feebar bi jógoon restriction de liberté dootul amati mais liberté dafa neex ku nekk dina dem dikk ñëw def sa ay soxla mu jeex donc euh, voilà Euh, docteur euh, est-ce que yaakaaroon ni ginnaaw euh, ministère de l'Intérieur def na ay kii arrêté def yëpp mais nit ñi ba tey taxul ñu def li leen war yaakaaroon ni est-ce que waruñu woon dem bokk ci réanimation yi filmer leen état cas grave yi nga xamante ne ni jàpp na nit ñi wala yéen ngeen dem ba wax leen carrément corona bi bien vrai xëy na da ngay xam ku mu jàpp feebar na si buru na jàll na wala nga xam koo xam ne def am na ko ba wiir def test ñu ni wér na nga jàpp ni rek xale nga euh, jeune nga euh, mais am na ay jeune parce que autant daan nañ wax âge ci première vague bi dañ doon wax sept mois sept ans kon am na ay ado ñu wan leen gravité maladie bi na xëy na su boobaa daañu gën mën a xam suñu bopp te xam ne tamit euh, kenn saakul sa bopp kenn xamul lu nekk ci yow bu dee jeunes yëpp day jeunes yi ça passe du ñëpp lay passé am na ñoo xam ne su leen jàppee mën na leen def ay mën na leen sax seen ay bakkan. Mm-hmm. Euh, Ndeye xam nga man dama jàpp euh, benn mbir c'est-à-dire que ñun état moo ñu jël ñun ñëpp njaboote ñu état moo ñu ñëpp njaboote ñu état su génnee ay arrêté par rapport à a à cette maladie là. mais dañ ko war a respecter mm-hmm. buñ ko respecté wul mm-hmm. état dafa war a appliquer daan yi nga xam ni moom moo nekk ci biir arrêté bi gis nga mm-hmm. mauritanien mauritanien têtu na têtu têtu têtu têtu mais gis nga boo laalee poche am waxuma la sax dóor dóor dóor am boo ko dóoree du ko wàññi dara day dem suba mu génnaat mais soo laalee poche am benn yoon waxuma nga ñëw di jël semam ay cent ak ay cinq cent boo laalee poche am benn yoon laal poche am ñaari yoon billahi dootoo gisat ci mbedd bi mm-hmm. foo ko gis mu ngi takk masque mm-hmm. mariage dootu ko def mm-hmm. mais il faut ñu sanctionner leen sanction yi daan moom il faut mu ñëw ci parce que depuis ñu ngi négocier depuis la première vague état mu ngi négocier di wax def leen lii def leen lii di sensibiliser sensibilisation bi xaalis bu bari la les quelques minutes laay jaar à la télé xaalis bu bari la état mu ngi def lu mu mën mais léegi bu nga nit di bañee nag il faut ñu daan leen li ngay wax ni il caméra yi dem si. Euh, réanimation yi réanimation yi wane ay malade xam nga mm. ñun mm, suñu métier dafa nekk métier boo xam ni. Mm. il faut nga def très attention. parce que am na de choses yoo xam ni mënuloo ko def da nga ko war a que c'est médico-légal. Mm-hmm. est-ce que tu vois. Mm-hmm. donc am na et puis dafa am lu ñuy wax le le secret médical. Mm-hmm. mënuloo dem nga tiim malade boo xam ni mu ngi nekk dans une situation très difficile. nga koy filmer pour ñëw divulguer ko à pour rek. pour rek population bi gëm ni lii am na mais mhm. ku gëmul ni lii am na mhm. da nga amul xel rek wala amuloo bët mhm. feebar bi ku gëmul ni am na li ma la waxoon léegi-léegi si njàlbeen bi nee naa la amul kenn si ñun koo xam ni amuloo ku la jege rek wala nga xam kenn koo xam ni sa voisin la te pertu ci pertu nit ci trois cent cinquante huit personnes yi décès yi ñu amagum amul amul kenn koo xam ni mësul gis koo xam ni feebar na feebar bi donc ñëpp xam nañ ne am na États-Unis ngay toog ñu lay wax deux mille et quelques par jour deux mille et quelques par jour nga koy gis bon bu question gëmuñu ni feebar bi am na c'est le je m'en foutisme donc dafa am nag fu mu war a arrêter lii dafa war a arrêter waratuñu continuer di ko seetaan nii nit di di def lu leen neex mhm. c'est pas possible mhm. première vague bi dañ doon takk masque koo gis mu ngi takk masque da nga yaakaaroon sax mode la pour man dafa bokkoon ci seen tenue vestimentaire <laughs> mais léegi dañ dafa mel comme dañ lay naqaral quoi kenn du sol masque mhm. ñu ngi def couvre-feu da ngay ñëw dans des endroits yoo xam ni dañuy rester dans un coin ñoom ñëpp ils sont vingt ou ou dix di naan seen ataaya kenn si ñoom takkul masque di waxtaan donc restriction yi ñu def daal dafa mel pour ñoom comme foo la donc vraiment il faut ñu jóg ci wala ku ne da jàpp ni wér nga sa morom tamit dafa wér xam naa moom dañuy jàpp am ñoo xam ne xëy na dañuy jàpp ni euh, corona bi euh, daf leen jomb mais docteur dafa mel ne deuxième vague bi moo gën a euh, ëpp rey que première vague bi si lu ñuy dund ñun fii ci suñu euh, ci suñu réew scientifiquement virus bi euh, ci temps bi dafa gën a jël kàttan wala. waaw euh, man nan laa koy expliquer. li ma lay wax rek nee naa la que du ma du ma virologue. Mhm. du ma biologiste. Mhm. donc defuma ay expérience wala ay kii yoo xam ni daf may démontrer ni lii. lii la lii moo ko waral wala lii moo ko waral. Mhm. mais bu ñuy xool ci xool nii. bu ñuy def ay remarque di xool ñëpp gis nañ ni. deuxième vague bi lu mu ray li première vague bi ray ko mais loolu dafa am explication explication mooy lan mooy nit yi dañuy dem ba nga xam ni faaleetuñu feebar bi c'est laisser aller nit yi instant bi niñ ko ragale woon au début parce que xamuñu ko wax naa la loo miin rek doot loo ko ragal première vague bi xamuñu ko woon koo gis mu ngi doxante ak gel ku yorul gel mu ngi yor butéelu eau de javel man gis naa ay nit yoo xam dañu yor butéelu eau de javel fii ak gel lu ñu laal raxasu lu ñu kii ni mais léegi gisatoo kenn mu yor gel. masque kenn waxatu ko. masque yi xam nga léegi lan la bu ñu buggee dugg ci benn endroit ñu xam ni fii bu ñu fi dugg bu dugg fii il faut ñu takk masque. ñu jël seen masque def ko nii suñu duggee ci endroit bi dindi ko am na ñoo xam ne sax defatuñu masque seen voile rek li ñu jël walla seen kaala. def ko nii après euh, dindi nañ ko. donc mesure yu ñu doon jël précaution yu ñu doon jël avant. di daw nit yi et tout ça jëlatuñ ko. donc affaire bi dafay gën a. dafay gën a takkarnaas mhm. et bon ñun ah, comme comme tous les pays du monde on n'a pas les moyens qu'il faut pour tenir tête à ce, à, à cette pandémie mhm. donc on va récolter les pots cassés mhm. suñu buggee daal di arrêté ñun ñoo war a jóg ñun la population ñun ñoo war a jóg yokk suñu fagaru euh, respecter lu ñuy wax mesure c'est pas c'est pas difficile matul sax cinq wala bu bu ko matee ca la yam respecté ko et puis ñu génn ci feebar yi am na ay dëkk yu ko def génn ci am na mm. ñoo xam ne dañuy dañu bunkeriser seen seen seen pays dañ ci génn très rapidement gis nañ fi exemple Chine bi nga xam ne fa la jóge mm-hmm. lépp lañ tëj ni ko rap jël nag ay daan teg ko ci nit nit bu respecté wu ñu teg ko ay daan. Mm-hmm. ñu def dañ ci génn très rapidement mais mm-hmm. pourquoi ñun mën ñu ko appliquer. donc foo faut nit yi vraiment fagaruwaat bu baax jéem a li nga xam ne moom lañ leen digal quoi franchement. Mhm. loolu rek moo fi sës. Mhm. waaw macha allah gis nañu daal fi ñu toll nii affaire bi takkar naa si na waaye dafa mel ne depuis deux jours quand même affaire yi mi ngi wàcc euh, di ñaan yàlla rek na gën a wàcc euh, dañ daan am ay ñaari téeméer. par bés ñaari téeméer lu teg dem nañu bay waaje a egg sax ñetti téeméer par bés mais ñaari fan yi gis nañu euh, ni barki euh, démb wala démb wàcc nañu sax ci suufu téeméer euh, ñu ànd rek ak sama réalisateur mu jox ñu deuxième élément bi di bilan wu tey bi bu ci ñoppee nag daal di waxtaan nag ci lu waral li ñu njort ni moo waral wàcc boobu tey jii ñetti fan ci weeru janvier atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn këru jëwriñ bu nu dénk wàllu wér gi yaram lu mu farle di ko amale bés bu nekk indi ay leeral si li nga xamante ni moom mooy xew-xew covid 19 diggante démb ak tey vingt quatre heures yu mujj yi ñu am ci ñi nga xamante ne ñoo feebar bi ni ngi toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaar bu ñu si yokkee ñi nga ñoom ñoo ak ñeenti junne téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent diggante démb ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo wér te amatuñu feebar ñu ngi toll si ñaari téeméer ñaar fukk ak ñett mu ko si yokkee si nga xamante ni ñoom ñoo wér bu feebar bi ni ngi toll si fukk ak ñaari junne ak téeméer ak fanweer ak benn diggante démb ak tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan si feebar bi di Covid 19 na ngi toll si juróom yàlla na leen yàlla yërëm te xaaru leen àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàttandu leen si àjjana bu leen yokkees ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ba feebar bi tàmbali léegi léegi ni ngi toll si ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett. Euh, gis nañu ñaari fan yi mbir yi mi ngi wàcc mën nañ seen mesure yi ngeen teg yi moo commencé ay ay résultats wala waaw mesure moom comme ni ma la ko waxee rek joxe nañ ko euh, ñun boo xoolee au niveau de au niveau la direction de l'administration territoriale dañu am liaison quotidienne avec euh, les les wilaaya mooy waal yeeg mooy xaakim yeeg mm-hmm. donc dañu am liaison quotidienne ak ñoom mm-hmm. donc ñu def vraiment un travail très important les autorités administratives déconcentrées donc ñu ñuy jox les au quotidien ñoom dañuy dem dugg ci lieu public dañuy dem dugg ci marché yi dañuy dem ci hôpitaux yi di xool ndegam ñoo ngi respecté ndegam ñoo ngi suivre mm-hmm. donc lu ñuy jox li par exemple euh, comme démba barki démba mm-hmm. trois jours il y a quatre jours de ça ñoo ngi wax ni vraiment ñoom lu ñu gis li ñoo gis ni population bi au niveau de l'intérieur ñoom vraiment ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi respecté couvre-feu bi au début au début information ñu jot ni dañuy jàpp ay quelques nit dañuy jàpp ay oto ñoo ngi leen di taxawal ay nit yi mm. au niveau au niveau du couvre-feu mais léegi vraiment jàppatuñu kenn nit ñaa ngi toog ñoo seen bopp dañuy ñëw taxaw di ñuy takk seen masque dañuy dañuy takk seen loxo donc vraiment ñoom côté boobu ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi def un travail donc ndegam ñoo ngi mesure moo tax mu wàññeeku mm. en tout cas ñoom ñoo koy ñoo <laughs> ñoo ngi ñoo ngi niveau de l'intérieur vraiment ñoo ngi respecté donc euh, xëy euh, na peut-être loolu la mais en tout cas on a on a un rapport très positif par rapport à cela d'accord mais euh, dee moom vraiment euh, intérieur bi ñi ngi respecté gis nañ ni Nouakchott moom euh, ñun ñi nga xam ne suñu liggéey moo tax ñu génn génnee wala suñu wàccee di ñibbi mhm. dañuy gis daañuy taxawal ay nit mhm. daañu taxawal ay oto mhm. des fois nga gis sax ku jëm ku ñëw ba jub policiers yi sax daal di daw daal di daal di làqatu mu mel ni kon dëgër bopp bi daal fii la gën a euh, tey mooy capital mënoon nañu wax dë dëgër a yeewu fii la waroon a gën a gën a bari que ñu nekk à l'intérieur mais dafa mel ne <laughs> waa uh-huh. intérieur ñoo gën a mën a topp daal li nga xam te ne ñu ngi koy euh, wax mm-hmm. euh, docteur ñu ñëw tey ci yéen euh, euh, docteurs yi yéen ñi nga xamante ni mën nañ ni yéen nekk sur le euh, terrain des fois dañuy dégg population bi naan hôpital de fees na docteurs yi débordé nañu amatuñu sax fu ñuy taxaw wala boo feebaree sax beneen feebar boo ñëwee duñu la xool yow mi nga xam ne hôpital ngay fay chaque jour est-ce wax yooyu ñuy population bi di wax est-ce que lu ñu teg ci yoon la wala ay wax rek la waaw li nga wax lii lii nga wax ni nii dama koy dégg parce que mm-hmm. des fois nit dafay feebar woo ma par exemple ma ne ko ñëw hôpital ma pare ko hôpital boo fi ñëwee kenn du la xool kenn talatul dara mais loolu waxu rek xam nga nit yi dañuy toog rek seen kër di wax lu leen neex mm-hmm. mais dans les hôpitaux ñu koy faj feebar yëpp dans les hôpitaux ñu amul benn hôpital boo xam ne fii rek Nouakchott mm-hmm. dafa nekk hôpital boo xam ne dañ ko spécialisé pour mbir Covid amul dañ naan de boo amul corona duñ la faale non non loolu loolu waxu nit ñi la te loolu mooy loolu nit ñu bari nag loolu mooy loolu nit nit ñu bari lan moo leen ñu jéem ko faj non dañuy toog seen kër naan boo demee foofu kenn du la faale wala boo fa demee ñu la da corona wax boobu dafa bari dañ naan boo demee foofu kenn du la faj wala boo fa demee man de bis bu yàlla sàkk ma tas ay nit yoo xam ni yeneen feebar la ñu am ñu ñëw di mm-hmm. faj si ki n'a rien à voir corona mm-hmm. am ay jours yoo xam ne nag damay tase ñoo xam ne ñoom ils ont virus donc daf ci am virus bi ci dafa feebar la bu dugg ci biir yeneen feebar donc maladie di wax ni boo feebaree boo demee hôpital euh, kenn du la que instant bi corona rek dañuy xool non nekkuñu ci loolu ñu ngi faj yeneen feebar ñeneen ñu am yeneen feebar ñu ngi ñëw ñu leen di mm-hmm. leen defal def ñuy dem ñuy dem seen yoon il faut ñu arrêter euh, message boobu ñuy véhiculer parce que baaxul. Mhm. parce que am na ñoo xam ne dañuy dem ba ragal hôpital. dañuy ragal hôpital am na ñoo xam ne dañuy ragal suñuy hôpital rek dañuy capter virus bi. exactement man dama am <laughs> ci laa bëggoon ñëw man dama am dama am habitude di leen wax ni. Mhm. milieu bu gën a pour mhm. bañ a contracter ce virus là. c'est l'hôpital parce que hôpital mooy endroit boo xam ne foofu rek ngay jëlee précaution foofu ngay nekk booy laal nit da ngay takk gant foofu ngay nekk da takk masque mooy milieu bu gën a wóor man hôpital moom mu gën a wóor sama man parce que hôpital ma fa nekkee du ma jël précaution yooyu ku nekk moo fay ñëw parce que nit yi tooguñ restez chez vous nit xam nga dafa mel ni bi ñu waxee restez chez boobu lañ gën a mën a sax di di dem donc il faut restez chez vous parce que parce que ñu gën wax restez chez bien sûr mm-hmm. parce que restez chez vous kenn restez vous chez soi. nit yi di gën a dem. donc communication bi ñu ngi ko gën a accentuer ci port des masques yi et puis lavage des mains. donc nit yi il faut ñu arrêter di wax loolu parce que ñu ngi lor nit yu bari. man tout le temps ay nit wax oui dafa feebar est que mën nga jaar gis ko mais il faut l'amener ni ma non hôpital léegi c'est pas sûr boo fa demee tam nga am virus. yàlla xam na ni kooku ñuy wax ni mu dafa feebar mhm. moom dafa am virus da mhm. day dem ba mu sonn ba nga xam ne léegi sonn na nekk na critique ñu doog ko yenn ñëw yóbbu ko hôpital bëgg miracle c'est pas possible c'est pas possible il faut ñu changer cette forme de communication hôpitaux yi suñu mhm. médecins yi ñu ngi ci hôpitaux yi di faj yeneen feebar yi comme ni ko doon fajee avant mhm. ku am covid nag dana la faj d'ailleurs la plupart yi dañu feebar feebar dañ leen jox seen traitement ñu dem seen kër isolé wu jël seen nekk dans des cas critiques ñoom ñu yóbbu dans les unités de soins intensifs faj leen bu ko ñëw rek ñu hospitaliser la ça se passe pas comme ça il faut communication boobu dañ télévision bi ngeen dimbali ñu ci mhm. buñ ko mënee wax ci kàllaama yëpp ñu wax ko parce que am na nit yu bari virus dañuy toog nag ba nga xam ni atteinte bi dépassé na leen. ñu doog a ñëw hôpital. mais mm-hmm. mm-hmm. est-ce que nekkul loolu li ko li koy waral mooy li dégg ay médecins yu bari dañoo feebar. nga gis médecins xam naa ay collègues la ay xarit yu bari. Mm-hmm. infirmiers yi aussi la même chose est que nekkul loolu moo tax nit ñi yaakaar ni hôpital ba ko ginnaaw ñu fay liggéey di faj ñi ñoom ñu koy am est que du ñoom aussi bu ñu fa demee ñooñu wàll leen ko tamit. mais a wax mooy domaine sanitaire boo décidé ni rek nga ci liggéey ka nga nekk médecin ka nga nekk technicien de surface ou autre chose boo décidé da nga ciy liggéey rek ça veut dire que xam nga ni lii dafa am ay risque du sax virus bi rek nga fa mën a jële mm-hmm. mën nga fa jële yeneen xeet feebar ku nekk xam nañu bi dafa am ay dafa bañ ba nguur dafay joxe prime de risque <laughs> médecin da leen prime de risque ah. da leen ko ci dugalal prime de risque prime boobu parce que xam ay risque donc médecin bi nekk dans l'hôpital xam nañu mën fa jëlee n'importe quel genre feebar mais attention médecin yi ñoom ku yëg ni dara dafa am yaram mm-hmm. tu vas faire le test nga xam situation su fekkee tu es un cas positif mais tu restes à maison ñëw dootu l'hôpital a ñun képp koo xam ni on a beaucoup de collègues yoo xam ni ils so sont fait tester ils se sont retrouvés positifs mais dañuy dem toog ba ñu encore ñu nekk négatif ñu doog a ñëwaat reprendre seen fonction donc ñun bu ñu daw ñun ñun bu ñu daw ñoom nañ dawante seen biir kër yi loolu c'est ça qui important seen biir kër ñoom nañ dawante mais ñun bu ñu daw parce que ñun xam ne la ñuy def donc loolu laa si bëggoon waxtaan euh, macha allah kon ñu ñëwaat ak Souadou Souadou euh, gis nañ ni euh, Covid phase bu bu daan génn guddi oto yi dañuy bari tax gisoon nañu autorisation yi dafa dañ ko doon euh, joxe mm-hmm. mais dafa mel ne bi yoon moom autorisation moom da ngeen naj ba mu dëgër waaw yii dañu naj bu baax sax <laughs> waaw da ngeen naj ba mu dëgër <laughs> mm-hmm. <laughs> sama classe nga xam ne waroon nañu xëy secret na a am war a ñëw liggéey sax euh, euh, amuñu la moo waral euh, ministère de l'intérieur am taxawaay boobu la ci wàllum autorisation yi. autorisation yi dañ ay autorisation mais yaa ngi am paradoxe day am donc bu ñëwee couvre-feu ngeen toog donc dañuy wàññi autorisation yi jox ñi ko war am donc ñu ko war am ñi mooy lan mooy docteur mhm. docteurs yi ñoom loolu moom kooku c'est évident mhm. donc euh, presse aussi war nañu am normalement autorisation mhm. ñii di euh, yóbbu lekk yi mooy camion yi transporter lekk yi ak yooyu wala ñi di yóbbu gasoil yi wala ñi yóbbu ndox yi donc ñooñu war nañu am war nañu am autorisation donc mu nekk li nga xam ne ñi vraiment c'est vraiment très important seen liggéey war na leen may ñu mën a am ay autorisation parce que seen liggéey moo ko laaj wala ñu ngi occupé ay postes très sensibles seen liggéey laaj ko waaye benn citoyen lambda parce que rek bëgg nga yow génn dem voilà bëgg nga génn tuuti si dem dox ay nii nangam non sama chaque personne mi di wax ak yow directrice adjointe mm-hmm. de l'administration territoriale awuma mm-hmm. autorisation mm-hmm. donc vraiment pour montrer que dañ ko wàññi bu baax parce que buñ koy distribuer à tout va ça ça ça va vraiment de du paradoxe kon daal xam ne autorisation yi bi yoon moom macha allah seere na waaw seere nañ bu baax a baax mhm. waaye di ka ñaan rek ñun waa télé <laughs> nañu nañu yéen da ngeen am yéen da ngeen am <laughs> nañu jox suñu wàll ci euh, ci mbir mi donc mu nekk rek lu am solo ndaxte am nga réew moom ku mu am ndey ku mu amul ndey baaxu ci donc amul dara loo xamante ni citoyen yëpp dañ leen war a rek euh, euh, yamale leen li nga xam ne buñ nee na ñëpp toog daal na na ñëpp na ñëpp toog mhm. ndaxte toog bi moom moo di suñu njiglaay docteur ñaari fan yi gis na ci léegi ci élément bu mujj bi mbir yi dafa commencé wàcc mhm. yow la nga mën a expliquer wàcc boobu ñu bañ a nag teel a naagu ñaar ñaar nag mu continuer rek di wàcc incha waaw lu may wax rek mooy wàcc bi moom yàlla yàlla xeeb doole rek. Mm-hmm. moom lu muy gën a wàcc rek. suñu xel di gën a daal ñuy gën a kontaan. Mm-hmm. donc wàcc bi moom su mënee continuer. Mm-hmm. na continuer di wàcc rek mais warul tax ñu ñu parce que soo gisee ci première vague bi. première bi dañ doon am ay jours yoo xam ni. dañuy dem ba ay quatre-vingt-dix-sept. ñu yeewu le lendemain ñu am deux cent et donc wàcc bi ça ne veut rien dire statiquement statistiquement ça ne veut rien dire bi bi wàcc c'est que démb egguñu 200 ñu ngi egguñu 100. Mhm. tey egguñu 200 par mhm. d'habitude dañu doon gis ay 200 ay mais ça ne veut rien dire. Mhm. ça il faut pas mu nanguñu il faut même pas ñu communiquer ci wàcc boobu. parce que bu ñu communiquer rek euh, naax am ñu ñu commencé di wàññi mesure yu jël. ça ne veut rien dire ces chiffres pas de valeur pour le moment. pour le pour que mu am valeur il faut ñu am une mhm. période boo ni c'est une période stable boo xam ni bon mhm. voilà on a mhm. remarqué que ça mais pour ces deux jours la ça n'a pas de valeur il faut que nit yokk fakaru bi man pour man bi sax a gën a yokk pour am suñu liberté man bëgg naa am sama liberté di génn euh, heure bu ma neex di mm, ñibbi sama kër heure bu ma neex mm. bëgg naa man di saafonteeg suñu waa kër. Mhm. dem di seet sama ay suñu waa kër et tout ça bëgg naa am loolu. pour ñu am ko nag pour ñëpp am il faut vraiment ñu yokk taxawaay bi quoi xool faxas mu mu génn ah. ànd ak at bu hmm. bu ko indi woon daal di ànd ak moom dem hmm. euh, euh, di euh, ko laxasoo ak euh, lii di mbirum corona bi mais gis nga xam te ni euh, léegi automédication euh, waaw automédication bi dafa bari maanaam jox sa bopp médicament ndaxte da ngay feebar tëdd sa kër woo sa infirmier man de def ba population bi dañ pratique yooyu feebar rek tëdd sa rek yow nga diagnostiqué sa bopp bindal sa bopp ordonnance jël ko toog waaw waaw ndax xam nga période bi moom mooy période bi ñuy wax période post hivernale période la boo xam ne même su dul virus corona bi feebar yi dañu bari mhm. dengue si lay ñëw mhm. paludisme si lay ñëw mhm. les grippes saisonnières la si la ñuy ñëw donc dafa am ay maladies yu bari yoo xam ne pratiquement seddaay ñoom ñoo nuroo ñoo ñoo nuroo la symptomatologie se ressemble quoi ñoom ñoo nuroo ay symptômes maladies yu bari yoo xam ne dañuy ñëw en période post hivernale yoo xam ni symptomatologie bi dafay nuroo muy dengue muy paludisme muy grippe su la suñu jëlul rek defal la analyse ni la lii la mënuloo xam ban la ci ñoom parce que ñoom ñoo ñoo nuroo li waral période bi feebar yi di bari lenn te boo ko xool boo ko remarqué année boo xam ni taw yi dafa bari année boobu ngay remarqué ni feebar bi dafay bari comme ça parce que day taw ndox yi taa ndox yi taaye moustique yi fa la ñuy ñëw pulluler wu fa jur bàyyi fa ay larve larve yi dañuy nekk di dund des fois sax da nga leen di gis da ni ñu ngi dund si biir ndox bi dañ fay dund di dund ndox bi di fer di évaporer ba mu wow koŋ su woowee nag larve yooyu dañuy jóg naaw dugg si biir kër yi di wut ci humidité parce que biir kër yi moo am humidité moo am lu sedd ñoom lu sedd la ñu fu am ndox wala fu taa wala si biir douche et tout su guddi jotee nag ñu lëmbee ci biir kër gi eh, indil la ay problème loolu moo tax feebar yooyu eh, di bari en cette période post hivernale mais nit yi dañu war a bàyyi man lii la àndal euh, bu ma nee lii laa àndal rek nday faat ni ma ah man bu ma dalee lii laa jëloon mm-hmm. donc am jël ko mm-hmm. dana la tànneel mm-hmm. da nga jël des fois mu indi la benn amélioration nga ne ah yow loolu la ko diagnostiqué wu bu ñu deful un prélèvement dem yóbbu ko laboratoire ñu xool ñu ne la yow lii la dar mbir sàngam la mënuloo xam lan la leneen looy def yëpp ay caaxaan la wala leneen looy def yëpp loraange la indi wala mu indi la loo xam ni day nëbb sa feebar da jël ay garab yoo xam ne day nëbb sa feebar da dem ba feebar bi fën a xël la ñu yóbbu la hôpital médecin bi mënul fexe ba xam lan moo la dal parce que jël nga ay garab yoo xam ni nëbb na sa feebar léegi kenn mënatu ko gis pratique yoo xam ni dañ ko a bannir je pense que ñëw naa fi avec euh, mon cher passage euh, le professeur Thiongan ñu débattre sur ce point sur l'automédication léegi nag moo animé woon émission boobu mm-hmm. donc ay pratique la yoo xam ne nit di war nañ ko bàyyi cette période là lu tax nit yi bu ñu amee fièvre wala seen yaram di métti ñu am ay courbature wala dara ñu ne ah parce que dañu ragal dem hôpital ñu ni leen yéen corona ngeen àndal mais man man je préfère ma dem ñu ma corona la àndal ma xam corona la àndal ma bañ a xam ni ma dal balaa tout cas fekk ma corona lan la du feebar corona ak palu ak déng lan mooy seen pourquoi nit yi jàpp ko comme feebar boo xam ni feebar bu bu rusloo la mais ban rusloo moo ci am virus bi bu dugg ci yow comme grippe nu may dale comme yeneen feebar yi les maladies bactériennes la dara ruus amu ci donc pourquoi nit yi bu ñu yëgee dara seen yaram surtout en cette période bi ñu xam seen période de pandémie où il y a pourquoi nit yi duñu sol ay dal dem ba si hôpital xool lan moo leen dal bu ñu ko xamee ñu mën leen faj benn yoon avant affaire bi di aggravé mais pourquoi ils peuvent pas le faire mm-hmm. yi mënuñu ko def maa xam ne am na lu mu yëg ci yaramam amul ma sàmba di la wax ah yow li nga àndal wala mm-hmm. mm-hmm. lu la neex quoi te lu la neex euh, mais loolu nag est-ce que des fois du tamit euh, bu njëkk ba rek euh, ndaxte loo gis ca ndorteel la bu njëkk ba bu benn famille amee corona ko doon jël si ak yooyu yëpp tamit lool tax loolu yaakaar naa tax na ba lu bokk si sax nit ñi gën a diaboliser feebar bi parce que da nga gis kon boo xam ne bu fa amee si après même waa kër googu sax dañuy ba moytu waa koñ mi beddi leen ndaxte ni ñu di jël si oto ambulance day ñëw wala beneen oto fëgg bi ànd ay way takk der affaire bi xam nga mel ne comme prisonnier yooyu bu ñuy jël si dafa mel ne tamit loolu tamit joué na si lu bari si lu tax nit ñi ragal feebar bi ragal wax lu ne parce que boo ko amee fi ñu toll nii da koy nëbb euh, sa ay euh, voisin ci gën a bari nañ wax ko ñu daal di mën a jël seen ay euh, matukaay soit ba tey feebar bi gis nañ ni intérieur moom macha allah comme ni nga ko waxee nii ça na bari ci biir Nouakchott tamit am na ay bërëb yoo xam ne nii fa la feebar ba gën a gën a toog ci ndaje yi ngeen di daje di waxtaan à chaque fois ci avancement feebar bi est-ce que amul ay ay matukaay yoo xamante ne nii fas yéene ngeen koo jël jagleel ko bërëb yi nga xamante ni fa la feebar bi gën a bari waa Ndeye Fatou je pense que ñun bu jël mesures yeeg bu ñuy def sensibilisation yi Euh, duñu seet fu mu gën a bëree wala fu mu gën a fu mu gën a kiiwee fu mu gën a wàññee je pense que dañuy def sensibilisation globale def des communications vraiment globales euh, fu mu gën a yokkoo fu mu gën a wàññee pour ñun daal l' essentiel objectif bi mooy ñu jéem ko xeex jël mesures yu ñu war jël lépp lu war daal pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu effectivement y a des am na ay foyers donc mais ça ça n' explique pas que ñu war a gën a kii foofu par rapport ak yeneen yi mm-hmm. je pense que dafa war a nekk benn kii bu global bu ñu war a euh, mënee mm-hmm. vraiment fu mu yokkoo fu mu wàññeekoo. Mm-hmm. donc ñun bu ñuy sensibiliser bu ñuy communiquer c'est vraiment euh, si si bépp bërëb bi nga xam ni ñoo ngi fay ñoo ngi fay ñoo ngi fay recenser mm-hmm. euh, doomu jàngoor bi. Mm-hmm. voilà macha allah euh, docteur scientifiquement <coughs> lan mooy expliquer foyer te bu ñu xoolee ci feebar bi mu ñëwee si dëkk bi ba tey dafa mel ne. tamit euh, ci yenn ci bërëb ñaar ba ñetti bërëb la ñuy gis ni foofu la gën a bare te changé ba tey même bi deuxième vague bi ñëwee tamit foofu la mbir mi gën a bare euh, yan facteur scientifiquement ngeen yaakaar ni moom mooy moom mooy waral waral loolu hmm. waaw euh, day faatu ak bépp maladie contagieuse bu mën a am mhm. bépp maladie contagieuse muy corona muy beneen maladie contagieuse bu mën a am dafa am ay facteurs yoo xam ni ñoom ñooy expliquer pourquoi telle zone ak telle zone ëpp mhm. ëpp euh, ñi fee contracté fièvre te loolu promiscuité bi moo koy moo koy entraîné mm-hmm. par exemple soo demee si ay quartiers yoo xam ni genre Arafat la gis nga foofu euh, kër yi ni ñu tegaloo mm-hmm. jege yow mm-hmm. gis nga population bi par exemple nu nu mu mel donc loolu ay facteurs la yoo xam ni c'est des facteurs yoo xam ni dañuy favorise zone yooyu nekk des zones yoo xam ni feebar bi daf fi ëpp. fii au niveau de Tafraxzena on a remarqué. que feebar bi daf fi bëri à chaque fois bu ñuy joxe les chiffres on remarque au niveau de Tafraxzena. dafa euh, chiffres yi dafa dafay jéggi dayoo. mais lan moo ko waral parce que au niveau de Tafraxzena il y a trop de mouvement. les gens se gis nga lu ñu doon wax affaire autorisation yi léegi léegi léegi. bu ñuy wax autorisation la plupart du temps c' est les habitants de Tafraxzena qui ont cette autorisation ñoom ñooy circuler. boo duggoon léegi léegi cinquième wala Basra doo gis benn oto buy. buy jaaban mais fii boo fa taxawee da nga yaakaar ni couvre-feu amul parce que les gens bougent nit bi dugg ci otoom rek nekk di wër ci biir dëkk bi non dafay jóge d'un point A il va aller dans un point B point B boobu muy dem dafay rencontrer ay nit nit yooyu jëluñu ay mesures mu jóge ci nit yooyu xëy na ramassé na fa dara dem delluwaat ci point A am ñoom fa fekk mu jox leen ko ñoo ñu xëy suba jóge foofu dem encore dans un point C ainsi de suite donc de restrictions des mouvements dafa am importance dans une période de pandémie sur une maladie euh, contagieuse dafa am importance il faut ñu xam ko am na ñu lay wax mais couvre-feu bi ça sert à quoi non ça sert à quelque chose exactement parce que am na ñu yoo xam ne nii dañ koy wax toujours lu tax bëccëg bi ñu bàyyi nit ñi dox seen soxla bu guddee ñu téye leen ñoom du ñu comprendre mm. Euh, lii nii nga wax nii day wane euh, clairement que ni kon toog bi lu mu néew néew lu mu bari bari am li nga xam xamante ni dina ko amal njëriñ ci avancement. xam nga première vague bi. Mhm. danu jël ay mesures yu bari. dañ tëj suñu frontière tëj suñu aéroport yi. Mhm. avion du dem avion du dikk. Mhm. tëj suñu frontière inter c'est-à-dire que mënuloo joge jógee Rosso ñëw Nouakchott. Euh, tëj marché yi. tëj yëpp mais c'était très difficile. parce que l'économie ne marchait pas. yow boo tëjee lépp. kenn demul kenn dikkul kenn liggéeyul mm-hmm. mais nit yi duñu du lan la ñuy dunde ah mais dañ ci am expérience nag mm-hmm. même réewu tubaab bi ko defoon tëj seen lépp da nga leen gis ñu tëj dara mm-hmm. tëj ñu dara couvre France couvre-feu la appliqué woon affaire bi dem takkarnaas tuuti ñu bañ a obéir couvre-feu bi ñu ne xaaral ñii foo ñu confiner leen léegi delluwaat nañ seen couvre-feu mais couvre-feu bi bu ñu yaakaar ne amul njariñ dégg naa nit yu bari di xanaa virus bi moom guddi rek lay dox du dox bëccëg non mais mënuñu tëj lépp suñu leen tëjee lépp lan la ñuy def kenn du liggéey kenn du jënd kenn du jaay. Mhm. ah nu ñuy def lan la ñuy dundee. rébellion lan ñu bëgg a indil. Mhm. mënul nekk. Mhm. donc dañu alléger euh, les choses pour que nit yi mën au moins mën am lu ñu dundee. mën déplacer wu mais en prenant les mesures qu'il faut. bàyyi nañ leen la journée ngeen liggéey mais la journée li ñu leen wax jéem leen ko def. jéem leen takk masque. jéem leen respecter la distanciation sociale. Mhm. jéem leen ngeen di raxas seen loxo à chaque fois boo leen suspecté ni laal ngeen loo xam ni waru leen ko woon laal. Mhm. jéem leen ko def mais en en même temps vous travaillez au moins dana am loo leen dugal seen poche yóbbu ko seen kër pour ñu mën ko def ci cin li. Mhm. mais bu ñu tëjoon lépp fii ñii di la wax xanaa virus bi guddi rek lay dox bu ñu tëjoon lépp fii ñoom ñooy ñuy njëkk a wax ñooy ñuy njëkk a yuuxu. donc c' est très important. c' est très important. donc il faut nañu si jàppale ngir yàlla ak yenant bi nañu jàppale si couvre-feu bi ko mm-hmm. franchement ñu respecté ko mm-hmm. macha allah kon nag ay kay samay wax waxu docteur la couvre-feu bi jàppale leen ci bu baax ngeen toog seeni kër même couvre-feu amul sax lu lu ñàkk solo daal nit mën na koo bañ a def booy nduggi sax nduggi ay nduggi fan pour bañ a dem marché tous les jours déplacement yooyu yëpp ay facteur de euh, risque la euh, kon nag euh, ñu ngi may wax ni liñ ma cërale woon ci waxtu daanaka léegi mu jeex kon su ma bàyyi rek nga euh, tàggatoo soo amee benn message boo xam ne yaa ngi koy wax ñi seetaan nga ñu koy baaxee waaw jërëjëf soxna Ndeye mm-hmm. bi je pense que bi c'est très important ko waxee sànq rek mooy dafa nit yi dafa ne dañ ko dañ ko ñame mm-hmm. te ñame boobu nag moo warta am parce que doon ni doon ni par exemple ñun amuñu ay junni nit ñuy dee donc ay quelques nit rek ñuy dee donc euh, voilà feebar bi daal mooy loolu donc je pense que bu ñu xoolee suñu mm, yaay yi suñu pap yi suñu maam yi di dem déjà loolu rek war nañu gën a ñaax ñu war a gën a fagaruwaat gën a xeex mbas bi mu jóge fi bu ñu xoolee restriction yi couvre-feu yi dem la kii bi ñu nekk société bi nga xam ne aussi on est une société bi nga xam ni dañu euh, yàgg demalante xam nga nga ñu tëju ñun xamuñu mm. tëju dañu xamuñu mm-hmm. dem dëkk dem say seet say waa kër dem mm-hmm. toog mm-hmm. Euh, xamuñu xamuñu toog bi xamuñu toog kes ku nekk yaa ngi tëju sa kër on n'est pas une société individualiste donc loolu déjà bu ñu xalaatee loolu war nañu gën xeex waru gën a euh, fagaruwaat pour xeex euh, feebar bi donc di wax rek population bi effectivement ñu ñu gën a ñu gën a changer seen comportement je pense que yëpp ci prise de conscience la yëpp ci comportement yi moom la ñu war a changer fii di ko wax mhm. am na ay euh, comité de jeunesse yi nga xam ni ñu ngi participer vraiment mhm. si si si si si si bi si sensibilisation bi mhm. il y a des associations de jeunesse les associations de la société civile en dehors des commissions bien sûr régionales départementales ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi def liggéey vraiment bu très important donc ñuy ñaan population bi ñu fekk ñu fekk ñu si loolu euh, ñu gën a xeex feebar bi mbas bi jóge fi bien vrai que ñun bon ay jullit na ñun dañu gëm nañu ndogalu yàlla gëm nañu peut effectivement mais euh, sabablu dafa am comme ñu wax rek sabablu mm-hmm. de feex ñu euh, koy wax olof di waxee euh, faju moo gën a fagaroo fagaroo gën a gën a gën a gën a kii donc ñu jàpp ci combat bi rek buñ ci mm-hmm. jàpp pense que buñ ko jàpp buñ ci jàppee ñun ñëpp rek mm-hmm. je pense que dañ ko dañu mën génne feebar bi mu nekk vraiment un très mauvais souvenir ah, amiin <laughs> kon docteur yow tamit nga daal tàggatoo ak ñi ñuy seetaan bon suñu su suñu dernier moom mooy rek d' abord on remercie tout le gouvernement mauritanien parce que gis nañ jéego yi ñu def gis nañ jéego yu ñu def te jarul xep parce que ñun du ma wax ni réew mu ndóol lan mais nous sommes un pays en de développement ñu ngi chercher à à émerger. Mm-hmm. donc gis nañ jéego yu ñu def te jéego yu am solo la. jéego yu am solo lañ def pour rek aar suñu population bi kenn du wax ni ñoom jéemuñu euh, takkuñu seen seen géño pour mm-hmm. jéem a aar la population. Mm-hmm. donc loolu ñu leen ci wax gàcce ngalaama mais gàcce ngalaama. sama confrère yi. franchement. li ci tëdd ci ñoom. ndax feebar bi. Mm-hmm. te jëlewuñ ko fenn lu ci hôpitaux yi ci fay faj ay nit yu am feebar boobu. Mm-hmm. li ci tëdd ci ñoom kenn mënu ko compter. Mm-hmm. mais alhamdulilah ñoom ñëpp ñu ngi retrouver seen santé. petit à petit donc ñooñu ñu jar a remercier leen ñu jar a encourager leen. les les médecins et le personnel médical. di remercier la population aussi. parce que la population lu ak lu ñu mën a wax. mën nañ wax ni presque toute la population respecte les mesures ñu ko du respecter ay benn benn lan ñoo du respecter couvre-feu bi donc ñu leen di remercier ñoom tamit di leen wax rek fu ñu taxaw fi rek nañ ko gën a yokk ba ci kanam quoi di remercier yéen waa télévision Mauritanie parce que yéen a ngi def seen liggéey par rapport à à doodu toog une semaine te woowu leen fii muy man wala muy keneen woowu leen fii pour wax ci affaire feebar bi loolu lay télévision di jëriñ man yàgg naa jooy yàgg naa jooy ci suñu télévision yi suñu panneau publicitaire yi doo ci gis lu dul euh, Mourabitoun jour demain doo ci gis lu dul euh, macaroni famo wala je sais pas quoi mm-hmm. alors du loolu mooy mooy rôle mm-hmm. sensibilisation la par rapport aux maladies qui existent mm-hmm. euh, loolu moo ëpp importance parce que comme ni ma amee habitude di ko wax rek santé bu amee problème rek lépp am problème te am na lu ma fi waxoon en 2016 bind naa fi benn article envoyé ko ci CRIDEM article bu gudd di wax les problèmes de la santé en Mauritanie mhm. et les solutions qu'il faut en Mauritanie mhm. bi ma ko defee ba pare dañ ma invité ci benn télévision fii ci euh, dëkk bi guddi mhm. invité ma si ma ci doon wax bi ma ci wax nee naa leen gis nga Mauritaniens yëpp mu nekk ku riche ki wala ku pauvre ki ñoom ñëpp war nañ jël seen loxo def ko ci suñu hôpitaux yi pour mu nekk ay hôpitaux yoo xam ne c'est des hôpitaux de référence ou de grand standing. parce que nit dana am dana toll ci benn euh, état boo xam ni. Mhm. dana si toll état boo xam ni mhm. même su fekkee c'est un multimilliardaire. Mhm. amul hélicoptère boo xam ni day décoller si biir këram yóbbu ko France wala Espagne pour mu dem faju ji. bu dee deux minutes dana ko jaar suñu opito yi. te loolu ma doon wax en en quatre en 2016. loolu tey moo ñu dab tey. donc yaakaar naa coronavirus feebar bu bon la. mais vraiment man damay wax ni. lu baax la ko parce que danañu jàngal lu bari ba buñ ci jógee. ñu changer suñu ay doxalin quoi. donc loolu laa bu doon tàggoo. di nuyu ñëpp di sant suñu téléspectateurs yi. di nuyu nag sama yaay boy. sama yaay moom. mënuma rek ñëw télé fii te duma ko nuyu na ma nit yi baal quoi mm-hmm. parce que lépp lu ma mën a nekk rek mm-hmm. yàlla ak Kumba Seck boobu la quoi mm-hmm. ma koy nuyu di ñaanal di ñaanal yaay yëpp ah, di souhaiter bonne heureuse la euh, di jaajëfal bu baax euh, euh, Souadou Ndiaye la woon mu bàyyee ko woon ci ministère de l'intérieur ak kii di docteur Cheikh Diouf moom tamit euh, euh, nekk fii ci hôpital mère et enfant euh, donc ñu ñëwoon tey doon waxtaanee rek fi nga xamante ne mbas mi fi la toll ma yaakaar ne rek waxtaan bi dina li ci li ci topp moom moo di jëfee ku mu fekkoon ngay jëf nga jëf mu fekkoon nga doon jëf nga daal di gën a fagaru ndaxte feebar bi ñun rek ñoo ko fi mën a jëlee ndaxte feebar bi moom du dox amul ay tànk ñun ñoo koy jël di ko yóbbu. kon nag nañu toog nu ñu namante namante ko rek jumtukaay yu xarala yi jokkoo yi bari na ñu mën a waxtaan gisee bi lu mu gën a mën a tuutee lu ñu ko mën a gën a wàññee ñu di koy euh, wàññee noonu sàmm suñu bopp euh, sàmm ñi nga xam te ni ñoom ñoo di suñu ay euh, mbokk kon nag mu nekkoon rek seen waxtaanu bés bi ki nekkoon ci kàddu gi di seen xarit seen soppe Ndeye Fatou ñu gën ko xam ci mineur ma feggoo woon samay càmmeñ fii ci salle bi ñu nekk ci ginnaaw caméra yi ak waa régie preneur de soins ñëpp ma leen di sant di leen di euh, gërëm maa nekk ci kanam waaye ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di doxal euh, liggéey bi euh, di leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah على تفنن واصفه بحسن